où je pose des questions à Ismaïla et je l'interpelle. On a parlé euh, du cas du, du bus, du, des cocktails Molotov, du, du, de l'incendie de l'université, euh, de l'absence d'indemnisation euh, avec cette loi d'amnistie, une série d'interrogations. Allez voir. Moi, j'ai pas peur de prendre position. Euh, j'ai pas peur euh, de, de, de, dire ce que je pense. Je m'interroge et je dis à Ismaïla... Euh,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 choses yoo xam ne pour des activités politiques ñu téye leen bàyyi leen en prison donc on ne peut pas venir euh, ngeen bëgg rek tëpp rek gëm ne way may mënul fay a dit ça les gens qui véhiculent ces informations là bu ñu nekkee ci réew mi dinaa leen lijjanti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 au nom de ces événements politiques là war nañu xoolaat mbir yi man c'est ça ma position et mais c'est pas la position que j'ai adoptée dans l'émission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 Euh, de ces hommes et femmes qu'on a pris qu'on a mis en prison ñu xëy ñu bàyyi la. et j'ai même dit à Ismaïla il y a pas d'indemnisation en cas de en loi d'amnistie bu ñu jàppee nit un an ñu jàpp la un an et demi ñu xëy ñu bàyyi la setaluñ la joxuñ la dignité delloowuñ la sa dignité nga setal sa bopp donc je veux juste euh, que loolu mu leer Fadilou bonsoir bienvenue et tu m'excuses hein c'était une précision nécessaire